fukkeelu édition bi ak juróom di ñaanal bu baax a baax alxalifatul am al cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullahu waraahu wa ayyadahu fi xidmatil islaam wal muslimin di ñaan sunu borom kàttanal ko wéral ko ba mu àggale mbooleem naal yi nga xam ne yëpp naal na ko te ànd koog moom ci barki Serigne tuuba di nuyu doomam ji nga xam ne tey moo ñëw fii ci Touba milaanu ànd ak mbokki taalibe yi. Eh, muy Serigne Koso moom Serigne Mountakha ak bokk yu baax yi nga xamante ni moom la àndal di ziyaare bu baax a baax jëwriñu liggéey bi muy eh, Serigne Sam Diop eh, kon sëriñ bi ginnaaw biñ la nuyoo siyaare la ren nekk fukkeelu édition bi ak juróom mu mel ne bokki taalibe yi bàyyi koo nañ ci ay gox yoo xamante ne ay gox yu fasantikoo lañ ndax naam bis bi Touba Italie ñoom ñoo ko tàmbali waaye mel na ni diaspora bépp maanaam ànd na ca ñoom kon euh, sëriñ bi euh, ñu bëggoon rek euh, message bi nga xamante ni war nga leen koo jox mu nekk message sub lislaam ndax jamono yi ku ne xam na ni yëngu-yëngu yi bari na rawatina ci li nga xamante ni moom mooy njàngum alxuraan ak coow yuñ ci coow waaye ñu gis masuuliya bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha jël na ko ci muy masuuliya bu am solo te itam ñëpp rafet nañ jortu ci ne loolu sëñ Tuubaa waxoon yàlla na sottee ci loxo mooy lil Moustapha lii banal qudduusu madrasatan biha yazulul aza wal jahlu wal kabadu nga xam ne mi ngi ciy taxaw taxawaay ba boo xam ne bu am solo la te lislaam lépp la koy defal kon euh, sëñ euh, Koso loolu rek lañ bëggoon euh, nga indil ñu ci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 noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di am mbégte bu baax ci teewaat fii ci guddi gi nga xam ne guddi gu sell la guddi gu màgg la di guddi gu ñuy lëkkale ak xasida lu teewoon fi daaw ànd bokk taalibe yi defoon ko ba mu sotti ci jàmm ñu santoon yàlla ca sotti ga waaye ñaanoon ko mu may nu nu ko may nanu ko noo ngi dolli sunu cant bu baax di ko dollee ñaanaat nañ ko ñaane woon daaw may nu fekk ko ay yooni yoon yeneen ca kanam di kanam di siyaar a Cheikh Mouhamadul Muntaxa alxalifatul aam lil muridina di ko ñaanal suñ boroom may ko wér te dolli ko kàttan ngeen ko fee yàggal ba ay projet am naal yi nga xam ne moom la naal ci liggéeyal sëriñ bi yàlla mottali ko di nuyu nag mboolem <clears throat> kilifa yi nga xam ne fekk nañ leen ci bis bii ñu nekk fi ak noon di suñuy kilifa sax nag ndax fekk nañ fi sëñ alaaj sëñ tàkk moom Cheikh Mahamadul Fadil mi ngi ci biir liggéey bi fekk nañ fi soxna ummi moom Cheikh Mahamadul Fadil mu ngi ci biir liggéey bi fekk nañ fii yeneen i kilifa yoo xam ne ñoom itam dañoo ñëw fekk si liggéey bi kilifa yu bari lañ jóge ci ay gox yu fasanti ko di nuyu itam mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo àndandoo xalaat-xalaat bi taxawal ko di ko doxal di ko def ba mat léegi fukki yoon ak juróom muy fukki at ak juróom ñu di leen ci nuyu bu baax ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko jiite tàmbalee ci Sëriñ Sam Diop ak mboolem ñu topp ci gannaawam nekk ci bureau bi wala ñu nekk ci gannaawam nekk ci ay membre wala ñu nekk ci gannaawam nekk ci ay soppe ñoom ñëpp ñu ngi leen di boole ay nuyoo ak ziar yu bare bare bari mbooloo mi nga xam ne yi dañoo ñëw fekk si ko ànd ko ak ñoom jóge fépp ni nga ko waxee léegi jóge ci diaspora bi jóge ci biir réew mi ak fenn fi ñu mën a jóge ba Sénégal am na ay ndaw yu fa jóge ba ci nun ñii ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel it ci bis bi ndax bis boo ko dee def di ko woote ba mu ndox ci lu toll ci fukki at ak juróom te mu mel ne bis bu set donte kenn nit dana ci yokk kon loolu dañ caa war a sant yàlla bu baax kon noo ngi sant yàlla ci loolu mënu mooy nga xam ne tey bu ko neexoon bu amee benn yoon dootu tollantiku waaye mi ngi dox ba nëgën ñuy ñaan yàlla lépp dox jëm ci kanam gannaaw gannaaw bu ñu leen yow ziar leen ñoom ñëpp nag ba noppi ñuy tontu nag ci laaj boobu nga laaj te mooy njàngat man lañ mën a am ci guddi gi ci bis bi ak yan soññee ak yenn gis-gis lanu ci am loolu nag lu am solo la ndax ku ne xam na ne lislaam dafay tool bu yaatu boo xam ne moom sun borom moo ko wàcce jaar ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko mu jàngale ko ba mat loolu mu am ponk lislaam yi xam ne moom la mooy keno lislaam yi mu yàgg fi lool ñu di ko doxal ci jóge ci ay loxo dem ci ay loxo jóge ci ay jiil di dem ay ajjaal di dem ci ay yeneen ajjaal ba ñu agsi fii bi ñu daaxan agsi ci nun nag am na diggante boo xam ne ba mu fa tolloo ki ñuy wax Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mi nga xam ne mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg yàlla def bu mu ñëwee moom jamono fekk fi loolu lu baax lépp yàlla baaxe ko lu baax loolu lépp mu taxaw ca kem kàttanam di ko def defin woo xam ne defin wu jafe la mu jafe def la nam ko doon defee dara yomb ca waaye ndax def jëf ja dafa mat te dara manqué wu ca mu tàmbalee ko ci waxtu woon war a jàng alxuraan ta teg ca waxtu woon war a jàng xam-xam teg ca di jëfe xam-xamam ba ko defee ba noppi mu am sas wu mu rëy wu mu yanu gannaaw ay farataam ak sunnaam jëme ko ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa di di ko def jàkkaarloog moom di bind di ko tagg di ko di julli ci moom di jàngale ay jikkoom ci biir ay mbindam loolu nag mu tudde ko xasida ni ñu ko baaxee xamee ci araab ndax xam nga xasida dañuy wax ne day nekk lu ñu way lu ñu natt lu ñu màndaxe mu am xaafiya mu am ak jublu itam dañu nekk loo xam ne nit ki da koy tànn rek loolu bu amee nit ki am ci juróom benn bayit wala juróom-ñaari bayit ñuy wax juróom-ñeent am na tuuti ak wuute bu boobaa dañ koy daal di mën a tudde xasida loolu nag sëñ bi def ci lu bari lu yéeme loo xam ne mboolem charte boo xam ne borom xam-xam yi andi woon nañ ko ci da koo andi ba mu mat sëkk mu def ko nag sas woo xam ne moom lam ci jublu mooy day boole di jàngale am na xasida yoo xam ne da koo bindoon ngir di ko jàngale am xasida yoo xam ne xasida yi zikr la wala mu nekk xasida yi shukr la wala xasida yi salaat la wala am ndax yooyu yëpp mu boole woon ko wala xasidal jihaad sax mu doon ko def te yëpp mu jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudde boppam xaadimu rasul ci ndigalal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loole mu doon def nag muy liggéey boo xam ne nit sax ca li ko def ba def ci lu toll noonu tuddee ko liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te nangul ko ko nekkutoon lu baax ci lu ñu xam nekkutoon aada ci lu ñu xam moom nag mu ñëw yàlla baaxe ko mu def ci liggéey bu rëy yàlla def it muy liggéey bu barkeel boo xam ne mboolem liggéey bi la war a àndal ànd naa ak moom loolu nag barke yee ko ci suñu boom defal ak may yee ko suñ suñu boom defal ak tiyaaba yam ko ci defal yëpp ba mbooloo mu nekk barke boo xam ne nag dafa mën a jëriñ lool doomu aadama saa su ci doomu aadama bi dee jublu te di ko di ko di ko jëfandikoo te di ci jublu ay njariñ njëriñ yooyu daf ko cay fekk loolu moo tax mu daan ko bind di ko jàngaloo mag ñi di leen ko loo di leen ko nafarloo di leen ko yuqiloo di leen ko wayloo ba nga xam ne siiw na ci yoonu murit njàngum xasida loolu nag eh, di doon loo xam ne dafa doon royaat di jóge ci mag ñi di jóge ci eh, ab ab ab xaaj di dem ci ab xaaj ba agsi fi nu agsi tey bi mu agsee ci jamono ji nag ginnaaw sunu boroom tabaaraka wa may na sëñ Tuubaa daraam du neen te daraam du dellu gannaaw mu may ko nag bi ñu ñëwee ba jamono ji ay nit jóg taxaw jël nag xasida yooyu muy liggéeyam bu rëy boobu jël ko nag def ko defal ko am liggéey bu rëy ba taxawal ci guddi yu mel nii ak bëccëgam nga xam ne dañuy booloo fi barab di ko jàng di ko durus ba di àgg ci di ko bind sax ngir di ko barkeeloo ci liggéeyam bu rëy boobu liggéey boobu nag ginnaaw nun mënunoo sàkk liggéey bu ko gën a rëy ndax xam nañ na liggéeyu Sëñ Tuubaa liggéey boo gën a rëy amut kon koo xam ne sa liggéey jëme nga ko ci mbir moom yi dafay daal doon ci mbir mu rëy rëy rëy loolu mooy li nga xam ne moo fi dajale mbooloo mi itam am ci positif lool am ci yéene lool am ci ak bëgg lool tax biñ leen ci woowee ñu ñëwee ñëwee nu mel ne wii ñu ñëw tey te mooy barab bii ñu ko defee doon barab bu yaatu waaye teewul mbooloo mi fees nañu ko dell te bokkuñu fu ñu jóge tolloowuñ ay distance yu ñu jóge ni ma ko waxee léegi ci biir waxtaan wi am na ñoo xam ne ña nga jóge foo xam ne dañoo yendoo daw ba ngoon ñu agsi am ñoo xam ne ay avion la ñu jël am ñoo xam ne bu ñu noppee ba julli fajar ba noppi bu ñu départee bala ñoo àgg fañ jëm muy ngoon loolu lépp di ay coono yoo xam ne ak i pëstéef rek ko lal ak bëgg liggéey bi ak bëgg xasida kon nag kuréel yooyu nga xam ne ñoo ko def mënuñu lu dul di leen gërëm di leen sant waaye di leen ñee ci seen yitte ju rëy jooju waaye di leen ci ndokkeel itam waaye li coono bii rëy rëy ak bëgg gi du tey ñu leen ci soññ itam ci loolu yi kon moo tax bi nga xamee ne ñoom ñëw nañu kuréel googu yi may wax ñëw nañu ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ziyaare ko jox ko seen addiya waxtaan ak moom dafa waxtaan ak ñoom moom itam xamal leen ne leen liggéey bi day benn liggéey ëpp ko ci ëpp ko fii fi man benn liggéey gën lu a lu ma ko liggéey bi day bokk na ci liggéey yi nga xam ne dolli na sama yaakaar bu baax a baax liggéey bi de bokk na liggéey yi nga xam ne jàpp naa ne sëriñ bi Tuubaa bég na ci ak wax ju yaatu sax bokk na ca lam leen wax mu ne leen yéen kat seen liggéey bi dama ko am nu ma ko gisee ndax dama day day yóbbu sama xel ci keroog xare Badar bi nga xamee ne yéefar yi ñu ngi toll ci ay junni jullit ñi toll ci ñetti téeméeri foog ñett képp ñu war a jàkkaarloo te jàkkaarloo mënatu a ñàkk dem jóge nañ fañ nekk dem fañ ko war a defe ba jàkkaarloo yéefar yi jóge nañ fañ nekk dem bañ jàkkaarloo ba dara desul lu dul jéem a xare ba war a taxaw dafa wax ne foofa dellu gannaaw dafa wéy te bëgguñu woon a dellu gannaaw te fasuñu ko woon yéen dellu gannaaw te dellu gannaaw mënta am yéen seen liggéey bi noonu laa ko gisee noonu laa ko jàpp muy wax ju réy di wax ju diis kon loolu ab soññe bu rëy rëy la ci ñoom loolu mooy yëg-yëgu Cheikh Mamadou Mountakha moo tax mu xam la ne moom kat yitteel na ko yitteel koo xam ne bu ko mënoon moom moo fi teewal boppam taxaw ànd ko ak yéen ba mat sëkk ndax gis ngeen dam koy defee ca tuubaa lii rek la ànd ak ña koy def waxtu wuñ tàmbalee mu toog ba mu jeex mu toog mu doog a jóg dem yitteel kon ku ne xam na ne loolu yitteel na ko kon bu nee bu ma ko mënoon maa ñëwal sama bopp lam fay def ñu teg ci suñu bët tax na ñu xam ne ñu jàpp moo tax nag bi ko mënul mu jàpp ay ndaw yabal leen a ah, li ñu ciy xeeb xeeb suñu bopp nag loolu la yàlla dogal ci nun mu soob ko mu yabal na fi ma ànd ak sëñ xaadim mi ak sëñ Muntaxa moom sëñ Modou Bousso Dieng mi ñu dikk fekk fi ay kilifa ñu ànd ak ñoom ci liggéey bii nga xam ne moom la ñu doon liggéey léegi ñu nekk di ko def ñu ànd ko ak ñoom ci ndigal ak Cheikh Mouhamadou Muntaxa te yàlla def na bu ko mënoo itam mooy ñëwal boppam kon nag loolu lii sunu sentiment mooy dañuy ci sant yàlla bu baax ndax mas naa am menn at ma di ko roy ma nekk fa daaru Minam Saalum di ko roy di fa jàngalu ab fulk nañ koy defee foofe fa njaareem lu ma dikkee wax ko daf ma ne alhamdulilah loolu de mën naa defar sax waxuma la aw tund waaye mën naa defar waxuma la ab dëkk waxuma aw tund waaye mën naa defar sax am réew kon nag yëngu-yëngu bi bari na ci àddina si lool ñëpp xam nañ ko itam ñëpp yëg nañ ko waaye lii de bokk na ci li nga xam ne saafara yëngu-yëngu yooyu ci la bokk kon nag yëngu-yëngu bu bari na waaye ginnaaw yëngu-yëngu bu baree nag li dox la teelu taal bu teel tàkk di sa ko taale nu nekk mënees sa ko waxtaane mënees sa cee indi ay xalaat waaye bokk na ci li koy yombal liggéey bu mel nii ndax mën naa indi jàmm ci lépp lu mën a doon xare bu tàkk sax lii mën na koo fay jafe-jafe bu réew itam ak wet gu mën a jëm moo xam ak ñàkk la moo xam crise la wala leneen lii bokk na ci li ko mën a fay kon na nga xam ne da dalal sa xel ci ne xasida kat fépp fu ñu koy yëkkatee yëkkati bu demee nii mu ànd ak paste bu demee nii dañu ñu di ko doxale doxee du demee nii mën naa faj lépp loo xam ne doomu aadama da ko bëgg saafara ci boppam mbaa man mën bëgg koo saafara ci am réewam mbaa mu bëgg koo saafara ci leneen lu mën a doon kon nun loolu moo ci sunu yëg-yëg moo tax ñu ñëw ànd kook ñoom ci xol bu sedd ànd kook ñoom ci ndigal sëñ bi waaye nag ci xol su sunu xol sedd ci guy ñu ànd kook ñoom ndax bi ñu dikkee li ñu fi war a fekk rek lañ fekk fekk fi ay kilifa waaye fekk fii itam njiit yoo xamante ne yu mën njiit lañ yu bari positif lañ waaye fekk fii itam mbooloo moo xam ne dañoo topp seen gannaaw te fas ko yéene ànd ak ñoom te rafetal ànd ba te fas ko yéene doxal ni nga xam ne noonu la gën a jubee te noonu la gën a rafet kon loolu moo ci sunu yëg-yëg ma bàyyi laa ak kàddu gi bu fekkente ne am nga leneen loo ci bëgg a laajaat. jërëjëf sëriñ bi comme noonu nga ko waxee wax dëgg yàlla mooy lu am solo nga xam ne euh, xasida yi fi jàng ak alxuraan ji nga xamante ni moom lañ fi jàng mën naa saafara lu ne kon loolu lu ama am solo la waaye dafa tolloog ni bis yu mel nii euh, war nañ cee jëlee ay durus mustafaada yoo xam ne euh, dañ ko yóbbaloo ba déwén mu mel ne sëñ bi ci ak ubbeekoom ci ak ubbeeku boo xam ne sëñ bi ubbeeku na ko moom ci boppam dem na ba wax ni wa amma ahzaabul aqtaabi wa daawaatu saalihiina fa azintu lakum an fi l amali bi kulli maa tayassara lakum minha haysu wajadtumuuhu mu mel ne kon dafa mel ne sëñ Muntaxa ak ubbikoom ci lii rek la jëm nga xam ne sëñ Tuubaa moonu digal nañu fu dogu gaa yu baax yi nekk jox naa leen digal maanaam ngeen jëfandikoo ko kon mu mel ne al alxikma daalatul mu'min la sëñ Tuubaa indiwaat kon sëñ Koso ñu bëggoon rek nga ñëwalaat ñu tuuti ci sëñ Tuubaa tuddee ko ba daj ka àdduna waaw sëñ Tuubaa ubbeeku góom googu mu ubbiku ba daj kapp àdduna daf koo jógaale rek ndax yàlla dafa def moom li muy woote dañ koo tuddee ab tariqa ndax li a di wax ku war mu du turub dëkk rek ginnaaw fekkoon na fi ay tariqa li mu andi ña ña ña ña ña mu nekkaloon te xamuñu lu mu doon tudde ko ab tariqa waaye sëñ Tuubaa moom li mu yor du ab tariqa sëñ Tuubaa li mu yor mooy lan mooy lislaam la yeesal lislaam ci boppam la yeesal eh, ndax fa lislaam tegoon tànkam rek la teg tànkam di ca dox di ko di yaatal di di ko def ci sunna ni ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bëgge ni ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daan defe ni nga xam ne noonu la saaba yi daan gis yoon bi saa sam di ko def mu xeñtu mbur moomee ba ba topp ko moo tax ubbeeku gi loolu moo tax mën a am toit bi laaj nañ ko ay laaj laaj nañ ko sa yoon wi fan la juddoo mu ne leen keroog ba lislaam juddoo moog lislaam ñoo ànd judd laaj nañ ko ci man réew mu ne réew waxtu wa lislaam juddoo ak réew mépp moo xam ne nit lislaam a nga fa tey topp lislaam réew moomee réewum lii ma fi indi am réewam la kon sëñ Tuubaa mësta nangu euh, doxinu woo xam ne day xatal walla dafay euh, doon loo xam ne dafay am fu mu jëm ci lislaam am mu bàyyi ndax li mu li mu indi dafa dafa dafay lu mën a ànd ak jullit jullit ñëpp nga xam ne kuy bàyyi yaay bàyyil sa bopp waaye sëñ bi moom amul li mu def fu mu ko yemale ndax amul fenn foo xam ne saa suy wax li muy jëkk a wax mooy jullit ñëpp lay waxal boo waxee jullit ñi nag ña nga xam ne ñoom te yàlla def ñu nangu ko wuy si bi ñu ko wuy si itam faaw mu wax ak ñoom kon ndax wàccaal jamiin mu'minina fil huda wal mu'minati sum'a fi ma'ada wajal jami'a al muslimina firtiqa wal muslimati ziyadin kon moom buy wax mu'min yëpp lay waxal ci àdduna wala mu wax ak muslim yëpp ci àdduna wala muhsin yëpp lay waxal xamul soxlawul loolu waaye boo ko bu demee ba nag bañ wuyu ko nag ña ko wuy si sañ naa wax ak yaa rabbi ijal muridina maa fi xisdika xasin waj ma kon loolu noonu la demee waaye sëñ Tuubaa mu ubbeeku gi da ko jógaale rek da ko jógaale doxaale ko ba fu adduna mën a yam mbiram noonu rek dafay noonu koy dafay doxe xatalul kenn wootewul ab sect wootewul ab tariqa sëñ bi daan mas na ko fee ko ba leer nañ ci war bi set wecc sëñ ab tariqa dafa fekk lislaam nekk ab tool bu taq wala aw yoon wu taq wu tilim wu bari ak ëkk wu bari ñax mu dikk dindi ëkk ya bay ñax ma radd ko yaatal ko maasale ko ne yoon waa ngi nii ku bëgg a dem na ñëw ngi dem kon yaatal googu la Sëñ Tuubaa mas def waaye mës koo def loo xam ne da da ciy woo kii bàyyi ci kii wala mu ne mu wut ab jullitam xanaa kay loo gis nag am na saal <coughs> te saal bu ko wolof dee wax mooy la gën a set ca mbir ma la ca gën a la ni mu demee mooy lislaam bi mu ñëwee dox aslëf bi mu demee ba li xew ci lislaam xew ci tasaaroo gi yaatu gi xare yi nga xam ne ak noone rek ko waral waaye amutoon jenn yilla wala àdduna rek ko waral waaye amul jenn yillay diine lislaam doxe ci tasaaro tasaaro yu metti ba ñaxe lool foofu nag la am nit ñu génn ñoom beru nu ñu rawalee seen diine li nga xam ne moom la lislaam sant bu ñu ko defee ba noppi te seen waxtu yañ ko def waxtu yañ moomal seen bopp luñ ca mën a dolli nag loo xam ne dana leen mën a jëriñ ëllëg mën leen a jëriñ àddina ñii doon ko def ci biir nit ñi di ko di ci di ci di ci seen kem kàttan ñenn ñi di dem ci àll ba di ko fa defee ci wéet ci ak dëddu ak ak ak ak uzla li ñuy loolu ci ñaar yooyu la tasawuf ñoom ñoy ñi nga xam ne dañoo gëm ne lislaam mat na liñ leen def loo mat na ñu fas yéene def ko ba mu mat seen kem kàttan waaye bu noppee nag lan dese ca waxtu lañ ca mën a dolli nag loo xamante ne ca yu baax ya ñu sax ca nag di ko def loolu mooy tasawuf tasawuf googu bi mu amee di dox di dox ba agsi ci sëriñ bi sëriñ bi yeesal ko nag génnee ca mboolem lu ca bokkul sëriñ bi génne ca loolu loolu mooy doxeenu sëriñ bi moo tax sëriñ bi moom amul wootewul lenn lu weesu lu islaam woote deful lenn lu weesu rafetal islaam bu waxee imaan wax islaam daf ci teg ihsaan te ihsaan googu mooy yii ñu la wax nii nga rafetal ko la nga ca moomal sa bopp nag la nga ca mën a dolli nga dolli ko rafetale ko lii nga xam ne moom nga weesu woon loolu rek mooy tasawuf du leneen jërëjëf euh, sëriñ bi xam naa dañuy bañ a jël sa kon rek euh, ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel mel na ni kon euh, bu ñu bëggee tënk li nga wax daal day mel ne kon lii fi xew lépp day dugg ci biir loolu sëriñ bi waxoon ni wahab li yan nusrata fil buldaani jamiiha yaa xaaliqal azmaani mu mel ne kon lii lépp nusrab sëñ Tuubaa yàlla nañ ko yàlla fayal kon sëñ bi sa kàddu gu mujj waaw kàddu gu mujj gi day moom xanaa dellu di sant rek di sant mbooloo mi fekk yëpp di eh, dëgëral rek loolu ma la wax inni oxaatibu nasaara turra fi ardihim joojee mu waxoon rek moo ci feeñ saa su nekk kon ñii du ñoom ñooy wax waaye sëñ bi mooy wax ak waa réew mi sëñ bi mooy wax ak waa réew mi sëñ bi mooy wax waa réew mi sëñ wax ak waa ndax lañu bëggoon ñoom te doon ko dox te doon ko sàkku bu sotti woon kon lii du am kon xitaab yii fii jàll du jàll kon sëñ bi moo wax ak ñoom waaye du ñun noo wax ak ñoom waaye la së waaye waaye waaye la bëggoon sottiwul waaye la sëñ ñu bëggoon sotti kon foofu waay nekk ci am réew di fa dof di fa di fa dox loo xam ne lu jub la lu rafet la te nga teg ko ci sunna teg ko ci farata ak sunna na nga xam ne doxeenu sëñ Tuubaa ngay dox loo fa def te teg ko loolu ci sëñ Tuubaa nga ko doxal kon loolu mooy li nga wax rek nusra bi weesuwut yàlla defal ko ndam ci kaw ay noonam mu jéggal ay noonam waaye suñ boroom wéyal wéyal nusra boobu ba kenn ku ne ci ay noonam fa nga nekk mbiram far la fa fekk di ko dox te doo ko sañ doo ko doo bañ ndax aw nit a koy def te xanaa lu bon mën nga fonk droit de l'homme boog lu bon bon bàyyil nit ñi kenn ko ne ak la mu gëm kon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi siyaar ñëpp di doole ñaar Cheikh Mamadou taxa yàlla bàyyi ko fi lu yàgg wéral ko comme niñ ko waxee woon ci njëlbeen euh, bàyyi fi ay rakkam yëpp rakkam yi itam ni ma ko waxee léegi rek danaa ci delluwaat lu tuut ci lu gàtt rek kilifa yi nga xam ne ñoom dañoo topp ci gannaawam te yam ñoom ab cër ci sëriñ bi nga xam ne ñoom ñëpp ay sët lañ amoon ay wàccuwaay yoo xam ne bu leen neexoon ñu feeñal ko kenn ku nekk itam Sëriñ Tuubaa fekk la fa nga nekk yàkkal la ba nga doyal loolu lépp ñu fàtte ko xoole wuñ ko doomu bàyyi xoole wuñ ko sax bàyyi waaye Sëriñ Tuubaa lañ ko xool ndax Sëriñ moo ëpp doole am murit moom Sëriñ Tuubaa ëpp doole ci moom lépp ñu di ko xoole bëtub Sëriñ Tuubaa boobu ñoom ñëpp kenn ku nekk fa nga nekk ci sa kër bàyyi ba ca tàmbalee ci xalifa ba ba ca ka ci gën tuuti kenn ku nekk ñu ànd di ko déglu di ko di di di ko topp te ba jëluñ ko dara xoolee ko rek jëmmi sëñ Tuubaa ji loolu faaw ñu sant ji ñëpp loolu génneewuma ci kenn ci kër Cheikh Moustapha ba ci kër Cheikh bu nu neexoon dañuy wàcc ba ca ka mujj ñu ñu ñu wax ci moom xam ngeen Cheikh Mourtala moom moom moom la ñu wax ne moom mujj sëñ Tuubaa waaye xam ngeen ne Cheikh Amadou fa daan wax naan ab nekkat ku la fa mujj moo la moo lay gën a xam la la fa nekk kon Cheikh Mamadou bi mu jógee jëm ci àll bi di defar di taxaw nit ñi di di loo mas a wax mu ne waaw rek lislaam waaw boo nekk sëñ Tuubaa ne waaw lislaam ngay daara ji moom na la doon doxe ba toj réew mi yëpp fenn fu nekk sëñ Tuubaa am fa taalibe yi am fuñ nekk am fuñ mën am luñ mën a def baloon a dëgër mu bàyyi fi njabootam Cheikh Ma Mor mi ngi fi moom Cheikh Mahamadou la waxtu nekk la fa Cheikh Mourtala bàyyee woon mu sole fa aw mu jóg taxaw dolli ca lu mu ca mën a dolli te wax naa ko léegi bu ko neexoon mu tëdd ne man kat rójal nañ ma bayal nañ ma ñor na kon man jariñoo rek moom ma dese waaye defu ko dafa jóg solu dàllam fas yéene fu si amurtulaa tegoon benn mu teg fa la mu teg fa mu teg fa ñaar di ko def ba àdduna sëpp gën a yaatu liggéey bi gën a yaatu gën a baax lépp itam mu mu mu def ko ngir xool jëmm jooj ju tedd jooje waaye nag nekk ci ginnaaw si Muntaxa ànd ak moom fas ko yéene liggéeyal ci loolu nga xam ne mooy tool boobu Cheikh Mamadou Mourtala bàyyi mu ne ci liggéeyal sëñ Muntaxa kon loolu buñ seetoon ci loolu rek nga xam ne moom dafay dem ba tey moom Cheikh Maam moom sëñ Maam mooy ambassadeur u euh, l'islam ci bitim réew kon loolu itam lu am solo la ña ca des itam di ay kilifaam di ay magam ñoom itam la nga xam ne moom la ñu war a nekk ñanga nga ca tanu nii lañ ko defee kon loolu mu ne suñ daal loolu sant ci yàlla bu baax sant ci sëñ Touba waaye santal leen ci sëñ Muntaxa santal sant santal leen sëñ Muntaxa ci jëf jëf jëf ju rëy di ko ñaanal nag ñoom ñëpp sama borom bàyyi leen fi bàyyi fi njabootu sëñ Tuubaa seex yeeg taalibe yeeg ñëpp kuréel gi itam suñu borom may leen ak yokku ñu jëm ca kanam ba waxtu wu nekk yàlla defal leen tawfeex ji ñu ji bëgg ñu jëm ca kanam mbooloo mi nga xam ne dañoo bëgg a liggéeyal sëñ tubaa mbooloo mu yaatu la waaye am na mbooloo mu ñuy wax itam tubaa ca kanam ñi góorgóorlu ñoom itam ci njiital sëñ ma sëñ sëñ Habib moom Cheikh Mamadou Fadil ànd koog Cheikh Abdou Lahad moom sëñ Abibu ak mbooloo mañ ko àndal ñoom tam waxtu wu nekk ña nga cay góorgóorlu di ko teg ci yoon te sëñ Muntaxa kat dégg naa mu wax ne ñii de man keroog bañ ma jik ba ma leen jikkee gis ñu ñëw fi man keroog laa amoon yaakaar ci ñoom ba tey kon nag mel na ne xel dal na ci ci lépp loo xamante ne doomu aadama mi ngi koy seq ak ñoom na loolu xel dal na ci daal gàttal ci gàttal suñu xel dal na ci kuréel gi bu baax suñu xel dal na ci guddi gi bu baax suñu xel dal na ci xasida yi bu baax sant gi it mënta yam fenn noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu ñëpp ak ci guddee gi ci eh, sëñ Sam mu toog nga xam ne moom mooy njiit li eh, taxawaayam ak melokaanam ak jikkoom ñëpp xam na loolu moo tax mu mën a jiite mbooloo mii waaye nag mbooloo buñ jiitoo buñ àndee di dox xëccoowuñ baat xëccoowuñ daraja xëccoowuñ alal seenu ànd daa man dana mën a yàgg kon nag na yàlla def taw tawfeex loolu lépp yàlla yàlla dàq ci seytaane ba ñett yooyu ma wax dara bañ ci am ñu bañ a xëccoo baaj bañ a xëccoo daraja bañ a xëccoo waaye du ñëpp ñu dëggal sëñ Tuubaa ndax liggéey sëñ Tuubaa yomb na lool koy def te te te te sëñ liggéey sëñ Tuubaa képp tax mën ngaa jiitu mën ngaa toppe te da ci mën a liggéey sëñ Tuubaa na ko bëgg maa ngi balu àq ñëpp maa ngi lu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax a baax ak yaag mbokk yi nga àndal di sant itam Serigne Sam Diop di wax mbokk yi ñoo ngi àndoon ak Serigne euh, Koso moom Serigne Mountakha kon ñu bàyyi leen ngeen déglu xasida ba ca kanam.